éducateur la ñu xam nañu dëgg élèves yi génn di manifester ku mu méttiwul doon nit nañu wax ci élèves yi di manifester ñu jéem ci trouver solution waxuñu ci élèves yi di manifester di tontu Innocence Ntap Ndiaye bi nga xam ne médiatrice dong la mhm. def ay jéego jàmm dong moo ko yitteel xam nga lan la wax kan la xeexal ñoom syndicalistes yi mhm. ban catégorie jàngalekat la xeexal nañu déterminer ñaata catégorie jàngalekat ñoo nekk ci biir enseignement bu fekkee li raxas bi ñu raxas soldu dañu nopp bàyyi leen ci biir gis nga réew bu ñu ko fowee ñu ëpp ci ñoom am nañu école privée ku ci demul jàngale école publique yaa ngi ci privé gi c'est la première fois moo wax ak ton bi parce que xam naa lu bëree bëree bëri ci lu ñuy ruumandaat te nëbb di ko nëbb raxas gi amoon solde donc bu ñu ko feeñaloon tey àdduna tukki est-ce que xam baax li ma la wax Charles VI bi nekk solde dafa soog a ñëw ba mu fa ñëwee laa wax la mu fa nettoyé am na ci wax bu feeñoon tey àdduna tukki nañu jàngale ji te wax ci élèves yi di manifeste ndax bëgg ku leen jàngal te ñu continuer ci dialogue bi innocence tam njaay woote ñu jéem a juboo ak gouvernement bi te bàyyi wañu wante wañu wante weex weex mag du caaxaan euh, euh, justement paasan jàngalekat yi euh, ndax poñ bi ñeel payoor yi maanaam ñu yokkal leen ci cent mille jàpp deux cent mille donte poñ boo xamante ne bu bu am solo la si ñoom mais ministère bi début bi ba tey ñu ngi xam ne ni ci jamono ji du lu ñu mën a def ndax ñoom jarul ñu ñu saytuwaat loolu bon je je comprends parfaitement Mansour <coughs> fi muy waxee euh, ay information la yoo xam ni am na ci effectivement yoo xam ni mën nañ ko bàyyi xel mais au-delà je partage pas son avis mhm. euh, je dis une chose très simple boo xam ni compliquer wu xadi mhm. bu compliqué wul du tout et très basique élémentaire mhm. l'indemnité du magistrat huit cent mille francs CFA même bu dee ci jamonoy Abdoulaye Wade à l'enseignant on lui dit cent francs gis nga li ñu la defal bari na de ah gis nga. te man enseignant bi. xaaral xaaral ma ñëw xaaral. non benn question ñaata ñaata jàngalekat nga am. waaw xaaral ma ñëw. ah plus de cent mille enseignants. Mhm. mënuñu toll rek énaam yaa ah, xëy. nombre kenn du calculer noonu. <laughs> da ngay daanu de kenn kenn du calculer noonu. parce que ci wàllu proportion bokkuñu. ça n'a rien à le corps magistral benn pàcc la. da ngay boole magistrat boole médecin boole sportif boole mbër boole ñépp jàngalekat moo leen di jàngal gars yi bu ngay wax dangay xool baax dañuy wax ab jàngalekat moo jàngal Mansour mu taxaw fii di wax jàngal Khady Colonel jàngal Fatou Abdou jàngal Ndeye Dime jàngal Mouhamed Diop ak keneen ñaari taxaw ñépp buggaan ak ka mënti doon ba ci président Macky ba jàngalekat amutoon doo taxaw di wax mhm. kon kooku ba taxawee ne cent mille francs yi ngeen may dox mënuma si génn ndax appartement bi ngeen maa fayeeku li ngeen ma kaa laajee daa bëri ba ngeen ma laajee costion benn ñaar ba ñetti weer ne ma kat studio bu ndaw pokus benn chambre ak toilette ak la ca des cent cinquante mille francs CFA ngeen jël ma affecté ma dëkk ba may dem xaw ma fa kenn dama war a luye la ngeen may jox du dépassé cent cinquante mille ci laa war a dund dundal sama njaboot fay sama njàng ay doom et cetera et cetera enseignants yi seen ay doom ñu ngi ci école publique bi. Mm-hmm. demuñu ci privé bi amuñu kër. Mm-hmm. ñi ko si am barewuñu le statut le standing de vie bu élevé bu ko bu ko ñenn ñi amee ci corps corps enseignant ñan la ce son peut-être les recteurs. Mm-hmm. les professeurs d'université ak peut-être le proviseur. à un certain niveau te seen ay indemnité demeewul nenn ni donc il faut ñu waxante dëgg mhm. da nga naan wax bi enseignants yi ñoo am dëgg ah. nguuru Sénégal la mu waxante woon ak ñoom naka respecté euh, ñàkk déggoo bi Ndeye Dimet am ci ci diggante Mansour ak Pa Assane moom la ñu nemmeeku itam ci diggante euh, syndicaliste yi nekk ci njàng meeg njàngale mi muy xadi lu doy waar gis nga man dama jàpp ne syndicaliste yi bu ñu bëggee réussir seen xeex il faut d'abord ñoom ñu déggoo qu'ils parlent le même langage mhm. parce que tey fi amalgaal amee amee te foofu mën nga fa jox euh, dëgg Innocence Ntap Ndiaye dafa am accord 2014 ak accord bu 2018. accord 2014 yooyu moo jël en charge la question de l'indemnité mhm. te boo dégloo syndicalistes yi ñoom waxatuñu ci accord 2014 lu ci ëpp ñoom ils ont fait focus sur les accords de 2018 te booy xool accord 2014 boobu noonu moo ëpp ay point yu ci nekk am na 33 points mhm. pourquoi bële nga xam ne syndicalistes yëpp ko signé bii boo xoolee waa G7 ñoo ko signé te indemnité bi ñu leen ci jox 40 000 la te ñoom wax nañ ko seen bopp que ni 40 000 sax jotuñu ci. Mhm. donc d' il faut ñoom ñu régler yenn questions yi seen biir ba pare mën a jàkkaarloo nguur gi parce que tey boo nee 2014 ni waat 2018. déjà day poser problème parce que protocole antérieur boobu noonu ci la seen revendication yooyu nekk tey Innocence Ntap Ndiaye bu fekkente ni dafa sëgg ci 2018 bi foofu da koy jox dëgg. donte nag ci 2014 ba ñoom li ñuy wax nii foofu la nekk donc quel est problème ba tey ñii gën a def focus ci accord 2018 yi ñii gën a def focus ci accord 2014 yi xaddi loolu problème la. Mhm. bu weesoo loolu nag. 2018 2014 ba tey xadi ñu ngi 2022. Mhm. est-ce que état bi li mu waroon def def na ko. Mhm. ñëpp gis nañu defu ko parce que bu ma si ak yow ay accord xanaa chaque année dinaa xool benn point bu ma ci mën a saafara. après. on avance mais gis nañu li am ci monitoring bi ay naxe mbaay la parce que avant Mariama Sarr di ñëw dañ leen dénkoon ki nga xam ne nii mooy Cheikh ñu dem ba ci biir après par la suite amuñu premier ministre donc loolu yëpp tey ay problème la yoo xam ne man jàpp naa ni manque de sérieux am na ci mhm. te tey jii président Macky Sall amul premier ministre mais dama jàpp ni lii urgence la dafa war a war a woo syndicalistes yi ñu toog waxtaan xool li ci nekk dans la mesure du possible ñu def ko après ñu avancer. poste boobu la nga wax sax ak itam gouvernement ñu euh, teg leen fi ñu ngi koy xaar ci euh, waxtu yi di ñëw euh, ab remaniement boo xamante ni ñu ngi koy xaar bi résultat yi génnee ba tey muy résultat yu tukkee ci élection locale bi ñu nemmeeku ci ni ñu bari ci ñu nekk ci gouvernement bi ak itam ay kàngam ci régime bi dañu caalat ji bu ñu sukkandikoo ci kili di journaliste waaye itam di analyste politique di Pathé Mbodj njiitu réew bi président Macky Sall dafee war a teg technocrate bu ko defee jafe yi askan wi di dund ñu mën koo saafara ci nu mu gën a gaawee Pathé Mbodj di xam ne ni way politique yi ñu ci bari dañoo wane ni seen xam-xam dafa jeex ñu ondu ceeg moom àdduna ci micro Mamadou Fofana. premier ministre wala gouvernement bi ñuy waaj a defar war nañu mën a jàkkaarloog askan bi tëddee njaaxaanaay jubóog syndicat yi kër këru diine yi jubóog xeet yi ndax teg gouvernement lu xaw a jafe la ko na lu xaw a jafe la ndax dafa da ngay dugal lu nekk da ngay dugal xeet da ngay dugal aada da ngay dugal diine te doo bañ kenn mere la ndax da nga bëgg bu bu taxawee ku nekk gis ci sa bopp gox bu nekk gis ci sa bopp askan bu nekk gis ci sa bopp diine bu nekk gis ci sa bopp syndicat bu nekk gis ci sa bopp ba nga xamee ni dana euh, rasaxal xam nga bu fekkee ne da nga teg ay nit ñuy def politique ñu duma leen bu fekkee ne da nga teg ay nit ñu war la taxawu taxawuñ la fenn bu fekkee ni da nga nekk ak ay nit yoo bokkal mbir ñoom si boppam ñu ne la ah dinañ bàyyi ku si mel ni Moustapha Niass wax na ko ku si mel ni Idrissa Seck wax na ko te bu fekkee ni ñooñu nga mënoon àndal di defar gouvernement da ngay a sa xel day xaw a dal bu fekkee bëgg nga liggéey mm. ndax bi ñuy teg nu mu mënti sore sore sore mënul weesu ñaari at pare nañu ci élection yi maire yu bees yi kon liggéey bi moom moo leen di xaar fu ci mel ni Patte dois foofu le maire bi di a Dièye euh, moom daal dinay fësal vision bi mu am ngir daal di liggéey ba nga xamante ne gestion askan wi ku ne di nga ci mën a gis sa bopp waaye itam mu doon lu set ay kàddoom la ñu on ci Kajara Touay Chaning xoolaat toogaay yi mooy xemmem teefu maire bu jigéen bi ñu fal bees ci commune bu Patte d'Oie li nga xam ne mooy sunu sunu mode de gestion muy la gestion inclusive et participative ñu boole ci un un aspect assez fexe ba jikko yi nga xamante ni moom la ñu namm ci nit ku baax ñu doxee noonu. xam bu njëkk moo di souveraineté bu conseil municipal bi. am conseil boo xam ne modèle lay doon parce que ñëpp dañuy nekk benn nu ñu nar a àndeek ñi fi nekkoon ak ñeneen ñi nar a ñëwaat sax euh, nekk ci du lenn lu dul teg ko ci respect. ak yëg ak safoo ak faale. madame le maire bu commune bu Patte jàngat bi la am ci scrutin bi nu génn. Euh, le peuple sénégalais wane na ni maturité bu mat sëkk la demee ci élection yi malgré tout ce qui s'est passé ak parfois conditions yu xaw a difficile yi ñëpp ñoo jog doon benn say jël décision. Maimouna Dièye jege lool askan wi li mu bëgg moo di coppite ci diir bi muy toog ci bopp mairie bi. jërëjëf Adjaratou Aïcha ñi ngi ñu dem ci seen rubrique seen xalaat. waa asalaamaaleykum waa seen team maa ngi leen di nuyu ñëpp vraiment bëgg naa lool ndax wax dëgg nga wax gouvernement bi mais yow it maa ngi leen di félicité fi maa ngi leen di félicité ci victoire bi ngeen am di nag sas bu diis a diis leen Sénégal yi sas ngeen bàyyi si xel bu baax a baax a baax. te sénégalais yi tamit en plus ñun ñoo xam ne yeewi fi ñu fekk réew mi métti na lool nañ leen may temps ñu liggéey waaw Macky Sall li la yégal mooy na bàyyi nag ñii ñu liggéey bu leen teg bu leen bàyyi leen ñu liggéey. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa des médias di wax ni askanu Sénégal tey yow na ndawi Sénégal tey.